am na prisonniers yu bari yu ñu bàyyi tey ci alxames ji te ñoom ñëpp ñu ngi leen jàppoon gannaaw ba ñu amalee li nga xamante ne moo di ay manifestation te ci alxemes ji lañ ci bàyyi ñu bari te ñoom ñëpp ku ci nekk lii di liberté provisoire la am moo xamante ne lii di climat politique bi dafa tàng lool gannaaw ñaari ay bés bi président Macky Sall li nga xamante ne moo di élection présidentielle yi tax ñi di société civile bi ak opposition bi doon teg pour ñu bàyyi ñi nga xamante ne ñoom la ñu wooy détenu politique pour mën a pacifier lii di espace politique bi. te ñi nga xamante ne jot nañ leen bàyyi bokk na ci Aliou Sané di njiiti mouvement Y'en ba noppi doon coordonnateur plateforme société civile bi nga xamante ne moom la ñu wooyee F24. bii di nit dof tamit bàyyi nañ ko ak précheur bi nga xamante ne moo nekk fële ci seen TV di oustaz Assane Seck étudiant bii di Abdoulaye Touré wala sax activiste moom tamit bàyyi nañ ko ak maire bu Parcelles Assainies ak ñeneen ñoom ñëpp tey ci alxames ji lañ bàyyi. te ñu bari ñu ngi jàpp ne li nga xamante ne moo di libération yi dina indi dal ci réew mi jamono jooju yi nga xamante ne ñu di société civile bi ñu ngi ko doon sàkku te ñoom ñooñu di société civile bi ñoom daal ñu ngi waajal li nga xamante ne moo di ay manifestation ci week bi pour contester li nga xamante ne moo di dàqum élection présidentielle bi